taskatu xibaar yi fii ci Sénégal daal nañ sumb ab xeex mu dib siiwalu bataaxal bu ñu tuddee éditorial dëgmal itam bis boo xam ni naruñ génne benn xibaar ak manifeste yu fasantikoo ñoo nar a jëmmal xeex bi nga xam ni taskatu xibaar yi daal dinañ ko sumb la waral loolee nag mooy ab njàkkare boo xam ni teg nañ leen ko ci nit ñi amalee seen liggéey taxawaay bi nga xam ni takku der dinañ koy am ci manifestation yi ñu tere boole ko ak ay teg loxo yu fasantikoo di coupé signalu télé naka noonu internet loolee moo waral njàkkare bu ni rax ci dolli ñuy ragal saa su ne ay nerveux yu ni mel ñëw yàkkate seeni i bërëbu liggéeyukaay yàkkaale seen alal yi nga xam ni am nañ ko ci méttitu génération de patron de presse yoo xam ni daal nañ fi jaar ay journalistes ak technicien de média farlu woon loolu ci tasum xibaar. climat boobu nga xam ni mu ngi woy ci langu taskatu xibaar la ko gën a ñoŋal mooy ay discours yu jaarul yoon tax ba ñuy ragal a wax jëm ci ñi fare ci nguur gi wala ñi leen contre. situation bu ni mel musul am Sénégal ba taskatu xibaar yi nekk ci privé bi daal di noonu anam bile la ko waral moo di ab parparloo képp jotewul dara ak sàmmonteeg li nga xam ni moo di règle yi tënku métier bile heureusement ba presse bi daal na comprendre boobe jeu lañu war nag mooy xeex ndax suñu dund xaj na ci suñu faatu itam xaj na ci nangoo dund ci njàkkare mooy yoon bi gën a gaaw ngir tëj gémminu waaye taskatu xibaar yi ba ñu wutee mission yi nga xam ni am nañ ko mu di joxe xam ni askan wi am nañ ko ngir am ay xibaar yu jaar yoon jëmmal li nga xam ni moo di démocratie ak bon bonne gouvernance yoon bi ñu tànn pour xeex a mooy bi nga xam ni moo gën a mooy bi nga xam ni itam moo mën a faagaagal ñi jug ngir fexeel waaye taskatu xibaar yi ba duñu amal seen liggéey ni mu waree.